Ils n'avaient même pas besoin d'avocat. Bon, tout le monde sait que c'était des accusations qui tendaient à porter atteinte à la profession donc, de journaliste et à museler ceux qui ont choisi d'être des journalistes d'investigation. Par voie de conséquence, il était très à l'aise, raison pour laquelle nous n'avions même pas senti le besoin euh, de poser des questions. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il est très fatigué. Et il a puisé donc ses dernière réserves, peut-être, bon, pour pouvoir faire face à l'interrogatoire du juge d'instruction. Il est aussi à souligner euh, qu'il était d'autant plus à l'aise qu'à la place d'un interrogatoire, c'était pratiquement des affirmations. Puisque dans le dossier, euh, c'était simplement un prétexte qui avait été pris euh, pour pouvoir en fait l'écarter donc euh, de, de, son travail bon, assez durablement. Qu'est-ce qui a été décidé Bon, je pense que mon confrère Moussa Sarr euh, vous dira en fait ce que nous sommes en train de faire, ce qui a été projeté. Tu vois frère, tu vois Voilà. Bon, euh, je suis mon ligne pour mon mot donc mbir mi laluwul ci ci dëgg ay tuuma la tuuma yoo xam ne que li ñu bëgg moom moo di ngalab ko ba pare it soril ko ci liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def pour réewam mu di maanaam di saytu di leeral euh, lépp li nga xam ne que day yóbbal day yóbbu réew mi ak démocratie ci kanam euh, moo tax tontoom tontu yu leer la ak tontu yoo xam ne que euh, maanaam dafa fësal ne liñ ko jàppee euh, maanaam jaay doole la euh, léegi nag li may souligner moom moo di que daanaka soxlawuloon sax avocat <laughs> soxlawuloon avocat ba ay question sax posé wuñ ko dégg nga bon tontu yu leer la te it loo xam ne du dëgg bon pour que nga fecc ko dafa nekk lu yomb Euh, li may wax nag di ko yëgle mhm. euh, moom moo di que euh, sonn na sonn na ndax maanaam li mu toog fan yi yëpp te lekkul wante wane ne dignité ak ngor boo xam ne que li mu dese ci kàttan ak ci doole dégg nga permettre na ko mu jàkkaarloog juge bi merci je vous en prie Aujourd'hui, euh, sur quel point l'interrogatoire s'est porté Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on peut retenir après Bon, écoutez, euh, au même titre que les avocats, je parle au nom du, du pool tous les avocats étaient présents à, à l'audition qui a démarré à 10h et qui vient de se terminer. Ce qu'on peut dire, comme vous le savez, c'est que l'audition est couverte du secret de l'instruction, on ne pourra pas s'épancher sur les déclarations qui se sont tenues dans le bureau du juge, mais on peut dire globalement que l'audition s'est très bien passée. Euh, même si Pape Alé est très éprouvé physiquement en raison de sa grève de la faim. Mais pardon, il rentre chez lui. Ça, personne ne pourrait le dire. Mm -hmm. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il s'est très bien défendu, qu'il a répondu avec pertinence à toutes les questions. Aussitôt après, le pôle des avocats a déposé une demande de mise en liberté provisoire et nous attendons, peut-être d'ici les heures à venir, qu'une décision favorable allant dans le sens de sa liberté sera rendue. Nous l'espérons. Nous attendons. Il continue toujours la grève de la faim. Il continue toujours sa grève de la faim. Euh, c'est une décision personnelle. Il a décidé de poursuivre sa grève de la faim jusqu'à sa libération pour des questions de principe. Maître, il y avait des questions de, de rapport sur lequel... Euh, en tout euh, Est-ce que non, écoutez, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'audition est couverte du secret de l'instruction, mais je rappelle encore une fois ce que, je, vais dire ne relève pas du secret de l'instruction, mhm. parce que ça ne concerne pas le dossier. Je l'avais dit au départ, et je le réitère, Pape Alignan n'a jamais été entendu à la police, n'est pas poursuivi pour le rapport d'enquête interne de la gendarmerie. Hmm. il n'est pas poursuivi pour cela je le réitère voilà. ci wolof rek ko ci ci kàllaama waaw ci wolof damay wax ci turu avocat yëpp ñi nga xam ne ñooy layool Pape Alé Niang. Ah, ginnaaw bi ñu ko dégloo sànq depuis dix heures déglu bi ñu ko doon déglu di déglu xóotal ci liñ koy tuumal déglu nañ ko ci ba pare eh, joxe na ci tontu yëpp macha allah tontu yu am solo ah, tontu yu yu dëgër. yuy fir na ne lépp liñ koy tuumal dara amu ci même su nekkee nag euh, dafa sonn lool ndax euh, depuis juróom-ñett fan lekkul euh, dafa xiifal mais avec dignité ak fulla ak fayda tontu na ci question yëpp naa nag la mu tontu lañu ko laaj loolu mënu ma ko wax parce que yoon daf ko dàq. wax nga ni dugal ngeen li nga xam ne moo di benn demande de liberté provisoire. waaw ginnaaw bi ñu ko dégloo ba pare ñun avocats yi nañ benn euh, demande de liberté provisoire pour ñu bàyyi ko bàyyi nëgëndeku am nañ yaakaar ne fii ak ay waxtu nañ ci am dogal bu ñu yaakaar moo nañu bàyyi ko mu ñibbi maintenant ñu ngi toog di xaar. mënuñu wax ban waxtu lay génn tey lay génn ci ngoon ou après xamaguñu mais am nañ yaakaar ne mën nañ ci am. xibaar bu ñu neex euh, fii ngoon ci la yaakaar. rapport bi ñu doon ne moo tax ñu téye ko rapport bi ba léegi ko question ba tey. non mënuñ ko poser question ci loola encore une fois waxoon nañ ko ci début procès bi Pape Alé kenn musu ko topp te kenn topp ko ba tey ci rapport d'enquête interne de la gendarmerie toppuñ ko ci loolu kon à partir de sa moment kenn amul lu ko ciy laaj kon loolu bokkul ci dossier bi. voilà